mbokk yi ñuy teewlu si Jàllale TV dal leen ak jàmm dañuy àddu jëmale ci l'accident bu metti boobee am ca Koungheul doomu adama yu bëri daal ci loru njiita réew mi nag jamono yi ma ngi cay àddu jëmale woon na ci bépp service bu gàllool wàllu wi ngir ñu daal di mobiliser wu boole seen yoxo wallu si ñi ci loru bile l'accident nag mi ngi am diggante Yamong ak Mbadia lu toll ci quatorze personnes maanaam fukk ak ñeent doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan njiite réew mi Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci fësal tiis ak nakaram xm la daal di bind ak ab tiis ak nakar la yëgee bile accident daal di am foofee ca Koungheul miñ nag euh, jébbal njaalam famille victime yi naka noonu ak képp koo xamante ne ni jege woon nga nit ñooñe te di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci am gaañu-gaañu ñu daal di wér ci nu mu gën a gaawee saa si nag mi ngi woo bépp service boo xamante ne ni concerné nga ci wàll wi ngir ñu daal di soutenir victime yi te assister njaboot gi ñooñee nga xam ne jamono yi ñu ngi ci tiis transport bi ngir ñu ànd ak prudence ànd ak dal ak tey ci tali bi waaye tam mën a respecter code de la route ci wàll wi nag mi ngi daal di euh, ñaax di joxe ndigal ci différents service yu fare ci état bi ngir ñu daal di sàmmonteeg euh, yenn ci ay normes techniques yu jëm ci wàllub oto yi ak règle yi jëm ci wàllub euh, sécurité routière bi maanaam kaaraange gi nekk ci tali gi ngir ñu sàmmonte ak moom waaye tam ñoom ñi fare ci état bi ñu dal di fexe rek ba daal ci ñaax ñi nga xam ne ñooy tegu ci tali tey ki ci El Hadj Malick Ndiaye moom mooy jëwriñ bu gàllool wàllu transport ministre bi nag moom ma nga woon foofee ca Koungheul ay booru trois heures du matin la fa daal di egsi l'accident bi nga xamante ne nii ñu bëri daal nañ ci ñàkk seen bakkan gaañu gaañu itam ñu bëri daal nañ ko ci am moom ministre bi mi ngi daal di ñaawlu anam gi nga xamante ne nii noonu la oto boobee daal di uh, amee bi la loronge moom ministre bi gàllool wàllu transport bi nag daal dina xam le ni mbir mi ni mel ñi ko def ñoo ko gën a tey te doon na irresponsabilité bu yaatu boo xam ne daal na ko ci nemmeeku mënoon nañoo moytundi lii yëpp ndax gis nañ ni doomu aadama yi ni ñu defaroo ci wàll wi rafetut euh, benn yoon faaw nag ñu daal di dakkal li nga xam ne moo jëm ci euh, surcharge yi ci oto yi ndax nag euh, loru gi bëri na loola waaye nag moom daal dina xam ne ni mënoon nañoo boobu boobule accident mënoon nañoo fexe ba moytundi ko ndax surcharge bam ca nemmeeku dafa doy waar lool moom njiit li daat na ci ñëwaat bu baax a baax moom nag nee na li du dara lu dul irresponsabilité te faaw nag ñu daal di gën a mën a dëgëral matuwaay yi ñuy jël ci lu ñeer surcharge maanaam daan goo xamante ne ni war nañ koo mën a teg ci ñuy jëmmal li bu ko defee nag euh, li jëm ci accident yi ñu daal di koy moytundi moom ci gis-gisam jàpp na ni boobu la accident mënoon nañ koo moytu ci ay anam yoo xamante ne ni dañuy ànd rek ak sàmmoon sàmmoonteeg ay mesures yu mucc ayib mu ne nag boobule oto même bu fekkante ne ay pënawam toll nañ ci neuf maanaam juróom-ñeent lu mu attanul du ko mën a téye faaw nag ñoom ñu daal di respecté loo xamante ne ni oto yi ñu yor war nañ koo mën a gàllool ngir nag ñu daal di maytundi jéeye yu doy waar yi di xew ci tali bi mu doon loo xamante ne nii moom El Malick Ndiaye daal dina ko xamle ginnaaw nag teewaayam foofee ca bërëb buñ nemmeeku bileel accident nee na nag faaw ñu def kéem kàttan ba daal di may tundi wala sax ba daal di dakkandil yi la pratique dakkal ko ci mim réew ndax nemmeeku nañ lu jëm ci surcharge mooy tax nag yenn accident yi di am ba nit ñu bëri di ci loru bile annonce nag moom daal dina ko def waaye nag yemu ci moom El Hadj Malick Ndiaye daal dina xamle ni dinañ def euh, du yàgg dara akum ndaje rencontre boo xamante ni bépp acteur bu yëngu ci transport bi yaa nga ca dinañ la ci woo ngir nag ñu daal di fexe daal di régler yile ndax boobaak léegi amul benn saafara bu ca tukkee doomu aadama yi ñu ngi daal di loru si tali bi doon na loo xamante ne ni moom euh, rafetlu ko moom El Malick Ndiaye mi nga xamante ne ni mooy jëwriñ bu gàllool wàllub dem beeg dikk bi ca teewaayam foofee ca Koungheul bilan bi nag ni la tëree ci boobu l'accident fukk ak ñeenti doomu aadama lañ ci xam ne ni ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan ñeneen ñi nag am ay gaañu gaañu daal di lañ rawale ci yenn ci ay hôpital yu fare foofee ca Koungheul ba lu ko wër ngir daal leen di jàppale ñu génn ci jafe-jafe yi ñu nekk jamono yi njiite réew mi nag moom ca beneen wàllu wa mi ngi daal di uh, artu wala sax mi ngi ñaax ñi nga xamante ne ñi ñoo faree ci état bi ngir ñu fexe ba saytu njaboot gi daal di leen uh, wàllu si ñoom it jàppale leen ci soutenir leen ci tiis bi nga xam ne moom la ñuy dund saa si tembe dañuy daal di wutali foofee ca Brésil benn doomu sénégalais lañ jàpp ni nag uh, police bi fare foofee moo ko daal faat dañ ko daal di nag sànni sixième étage ak perquisition la police bi daal di amaloon foofee ca Sao Paulo li ni mel nag daal di na indi ak drame bu doy waar ki di Mortala mbay daal di nañ ko fekk mu daal di faatu ginnaaw nag chute boo xam ne def na ko maanaam jóge ci sixième étage daanu bu ñu sukkandikoo nag ci compatriote yi fare foofee ca Brésil ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma policier yi ne ñoom ñoo rey seen euh, mbokk boobee nga xamante ne ni mi ngi ne woon foofee dañoo mi immigré la foofee ginnaaw nag mbir yoo xamante ne doon nañ ko fa amal saa si nag li tax ñu daal di joxoñ baaraamu tuuma police bi dañoo bëgg a le ni kooke moom ci jëm boppam dafa def akub suicide. maanaam Mor Talla moom moo daal di faat boppam te police bi mel na ni moom la Sénégal yi fare foofu di joxoñ baaraamu tuuma ne ñoom ñoo ko sandi ci euh, sixième étage mu daal di daanu ci suufa moom Mortalla ay étape mi ngi toll si trente maanaam trente ans la am nekk nag originaire Touba maanaam Touba la bàwweekoo kii di El Hadj ak ay camaradam maanaam ay xaritam yi nga xam ne ñoo nekkandoo woon foofu ñu ngi daal di sonju di woo autorité yu yees yi fare fii ci Sénégal ngir ñu réagir ci série de bravure maanaam policiers yi fare ci Brésil anam gi nga xamante ni noonu lañuy ñuy xoxatalee doomu adama yi ñu daal di leen ci xool bu baax a baax ndax mbir mi doy na ñoom ngi koy dund guleet ndax bëri na ci ay doomu aadama yu nekk foofee ca Brésil wala sax si biti réew ñu leen di xoxatal te du am kenn koo xamante ne ni da leen ci wàllu si ndax ña nekk ci dëkk boobu rek ñoom ñooy am dëgg ñu ci bëri ci ñoom sax dañuy dem ba di leen faat waaye duñ xam xamle ni que mbir mi mi ngi tukkee ci waa dëkk ba moo xam Brésil la wala fépp foo xamante ne ni ay doomu Sénégal ñoom ñàkk nañ fa seen bakkan saa si nag doomu sénégalais bi daal di dund ñëpp ni fare foofee ñu ngi def seen kem kàttan bañ daal di leen dégg ci wàll wi xam leen ni ba ñëpp daal di koy yëkk kookee di moxtaala dañ koo daal di faat waaye nekk loo xamante ne ni moom moo ca faat boppam ay kàddu yoo xamante ne ni moom la El Hadji Ndiaye daal di yëkkati policier yi ci jëm boppam moxtaala dañ ko daal di fekk foofee ci sixième étage ba ci guddi gi sans mandat de perquisition maanaam amul benn mandat boo xam ne yor nañ ko bu leen di permettre ñu dugg ci bërëb boobee jëmal seen liggéey ci bii ba noppi daal di sandi ci immeuble bi ngir nag daal di mën a dissimuler loolee ñu duppee ak euh, suicide ñu daal di xamle ni que Mortalla moo daal di faat boppam te loolu dara newu ca dëgg police bi ci jëm boppam moo ko daal di fekk fam nekk def jëf joojee ci fàttali nag beneen ressortissant sénégalais turam di mama Mamadou Touré moom it jotoon nañ ko faa faat 11 février 2024 bi ñu génn jotoon nañ faa faat ci jëm boppam doomu sénégalais boobee di wuyoo ci Mamadou Touré ci ville bu ñuy duppee saisir bërëb boobee saa si nag doomu sénégalais yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fa nekk ñu ngi daal di woo gouvernement bu bees bi ngir ñu daal di leen euh, jàppale ci bavure policière yi ñu xamante ne nii daal nañ ko nemmeeku foofee ca Brésil doomu aadama yu bëri ay sénégalais lañ ñu ngi cay ñàkk seen bakkan te lenn loo xamante ne nii dana ca tukkee ndax kenn du leen ci jàppale brésiliens yi ñoom ñooy ëpp kàddu ci wàll wi kon nag ñoom sénégalais yi fa ne ñu ngi daal di artu ak woote ngir ñu daal di leen ci jàppale mbokk yi ñuy teewlu si Jàllale TV fi la ñuy taxaw ak leen bu baax ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci de notification bi ngir dara bañ leen a rëccu ci suñu programme